bah, Écoutez, je, je, garde confiance en la justice de, de mon pays. On a passé une première étape, deux étapes d'ailleurs, parce que non seulement le tribunal correctionnel nous a relâché de, relaxé tous les chefs, nous avons également gagné en appel au civil. Bon, il y a évidemment quelque chose qui ressemble un peu à l'acharnement judiciaire. On vient de passer six heures de temps au tribunal. Je ne sais pas si vous étiez déjà là, Moi, ce que je demande jusqu'à présent, ce que je n'ai jamais cessé de demander, puisque je suis poursuivi pour euh, usage de faux et avant ça complicité de faux et escroquerie, j'ai demandé qu'on me présente le faux. Jusqu'à présent, on ne m'a pas présenté un document faux dont j'aurais été auteur ou complice. Et je n'ai jamais essayé, verbalement, même verbalement ou par écrit, de retirer des biens appartenant à Madame euh, Aminata Diak, mon, mon ex-épouse. Or, ce sont les, les, chefs pour lesquels je suis poursuivi. C'est vraiment dramatique. J'en ressors aujourd'hui avec euh, peut-être le, le, le, sentiment suivant. Euh, il y a confusion entre documents administratifs, documents euh, d'état civil, documents, mieux, décisions de, de, de, de justice. c'est la confusion la plus totale, mais en tout cas, il y a au moins une constante. On s'acharne sur Abdoulmaï, on lui retire ses passeports, alors qu'au départ, il y a une requête conjointe introduite par mon ex-épouse et par moi-même, qui a été traitée par un juge, qui a été traitée au-delà de ça sur la base de la décision juridique par euh, euh, un, un, officier d'état civil. Et je ne vois pas quel rôle j'ai eu là-dedans. Alors vous savez, info c'est clair. Le rapport de présentation du décret Petrotim, des décrets Petrotim, ce sont des faux. Et on a mis, précisé pourquoi ce sont des faux. Ce sont des faux parce qu'on dit des choses qui ne sont pas vraies. Et alors ce qui est, ce qui est extraordinaire, c'est qu'après toutes ces semaines de débats, après toutes ces années de débats, personne aujourd'hui n'a encore dit le président de la République, le ministre Alingou Ndiaye, les, les, comment il s'appelle, euh, Abdoulatif Koulibaly, tous ces petits qui traînent autour. Personne, messieurs les journalistes, prenez-moi à défaut si jamais je me trompe, personne n'a encore dit le rapport de présentation est correct et juste et conforme. Et vous euh, je, reviens au procès. C'est ça la définition du faux. il y a un faux, il y a une intention de fraude pour escroquer. Dans ce cas-là, dans le cas de Petrotim, on essaie d'escroquer, on a déjà escroqué le peuple sénégalais, 15 millions. Alors ces gens-là, on n'en parle pas, on n'y touche pas. Abdoulmaï, il n'y a pas de faux, il n'y a pas de tentative d'escroquerie. Voilà maintenant depuis 2014, 2016 en tout cas, fin 2000, euh, juillet 2016, dès que j'ai créé un parti politique, euh, ça a commencé. voilà trois ans maintenant que je vais, je viens. Aujourd'hui, je viens encore de, de passer ces... de votre relax, qui a, qui on a ferme contre vous. Bon, écoutez, c'est, oui, c'est, c'est, c'est scandaleux, comme le dit, euh, comme l'a dit mon avocat. Vous avez un procureur de la République qui demande un an d'emprisonnement en se trompant de nature de document. Le document, même s'il était faux, c'est pas un faux administratif, c'est pas un faux de document administratif. S'il était faux, c'est un faux de, de, de, d'acte authentique. Et lui-même, il n'est pas attaqué. Ce qui est attaqué, c'est la décision de justice qui a conduit à établir le, le document authentique. Non, vraiment, c'est... c'est, c'est je, je, je n'ai pas de mots pour qualifier euh, cela, mais de toute façon, ils avaient le droit hein, d'introduire un appel. Il faut respecter les, les, les droits. peuvent être euh, remplies euh, plus ou moins quand on veut. Est-ce que cela vous a été édifié euh, par, par vos avocats Voilà, effectivement, il y a une euh, exception euh, qui, a, qui, a, qui, a, été, qui a été soulevée dès le départ par mes avocats. On m'a dit c'est le procureur qui euh, fait appel. Effectivement, mes avocats ont sorti la page du registre avec le nom du premier substitut du procureur, mais et ça c'est illégal, sans signature, sans signature de, de, de, du procureur. Bon, malgré tout, de toute façon, comme on est là pour dire la vérité, euh, il était important que la, la séance euh, soit tenue. Et par contre, vous avez mon ex-épouse qui a également fait appel, mais d'une décision qui l'arrange elle, parce que la décision dont qui était l'objet aujourd'hui de, de, de l'appel, c'est une décision qui a relaxé, qui n'a même pas traité le, cas de, de mon, de mon ex-épouse. Enfin, on, on s'y perd un peu, je vous avoue, mais l'important c'est que la vérité soit dite. Pour ce cas, qui est un cas mineur, qui ne m'ébranle pas, mais surtout pour tout ce qui reste. Et comme je le disais, les vrais faux aujourd'hui qui intéressent et le Sénégal, les vraies tentatives d'escroquerie ou escroquerie effective qui intéresse le Sénégal, c'est l'affaire Petrotim. est-ce qu'à l'époque on peut parler de manipulation vu que vous-même vous Mais je n'ai jamais dit que je n'avais pas signé. J'ai signé une requête que nous avons adressée au président du tribunal départemental pour rectifier le régime matrimonial. Et quand je dis j'ai, j'ai co-signé, c'est-à-dire qu'il y a ma signature, il y a celle de mon épouse, mon ex-épouse, parce que c'est une requête conjointe qu'il fallait introduire et c'est ce qui a, qui a été fait, je le reconnais. Monsieur Abdoul a reçu une convocation de la DIC Non, pas encore. Par contre, euh, on va écrire pour demander à être entendu, hein, parce que <laughs> on, est, on, est, vraiment pressé et on va, on va dire tout ce, tout ce qu'on sait, bien entendu. Monsieur le Premier ministre, est-ce que vous pouvez donner un commentaire sur la tenue de ce procès au moment où vous dénoncez les actes de Petrotim et le contrat pétrolier et gazier Pourquoi c'est maintenant qu'on vous convoque pour cette Bon, de toute façon, on ne me pardonnera rien, hein, et on ne me pardonne rien depuis que je suis opposant. Donc ce n'est pas en relation avec euh, Petrotim. On ne veut pas que je sois opposant. On a voulu me faire perdre mes droits civiques euh, et on, on veut, on a voulu aujourd'hui, par contre, euh, me mettre en prison à la demande de l'avocat euh, général qui était, qui était présent. Milliards de de toute façon, ce n'est pas moi seulement qui cherche à faire taire. Ils veulent faire taire la vérité. Il ne faut pas que la vérité soit dite, c'est tout, c'est leur stratégie. Au contraire, nous, nous sommes dans une stratégie de manifestation de cette vérité, de cette vérité, d'information du peuple. Et c'est pourquoi des rassemblements... Euh, pacifiques pour simplement informer sont interdits et font l'objet d'une répression aussi, aussi, farouche que celle que nous avons vécue euh, vendredi dernier. Vous ne verrez rien aujourd'hui du côté du pouvoir de Macky Sall et de tous ceux qui sont avec lui allant dans le sens d'un rétablissement de la vérité sur les affaires pétrolières. Tout ce qu'ils font, c'est pour cacher cette vérité.

que le parrainage tel qu'il existe n'a pu être appliqué qu'en violation de la loi, qu'en raison de mensonges, et le parrainage, il est impossible de le rendre euh, efficient à l'occasion des élections locales. C'est pas possible. Pour les présidentielles, c'était pas possible non plus. Mais pour les présidentielles, il était important de liquider certains candidats et cela a, a, a pu être fait. Donc c'est pas étonnant que les arguments que nous avons développés dans ce, euh, dans, dans, dans ce rapport public puisse être repris par des institutions comme euh, l'Union européenne, et c'est ce que j'ai constaté. Vous, dites, vous, disiez tout à l'heure euh, des preuves euh, par rapport de présentation de décret, PetroAsia, c'est-à-dire le groupe de Petrotine, est un très grand groupe qui dispose de beaucoup de moyens financiers, de beaucoup d'expérience. Mais c'est faux. On a les éléments qui montrent que c'est faux. Et eux le savent parce que jusqu'à présent, ils n'ont pas démenti ce qu'on a dit. Bon, ils disent Abdoul a, posé son contre-saint. C'est vrai. Mais ce qu'on leur demande aussi, c'est de dire si le rapport est juste ou faux. Il est faux, il est faux, il faut, le montrer à la DIC et donner les éléments. waaw li ma li ma mën a wax daal ci ci mbir mi nga xam ne am na tey moo di ne indiwaat nañ ma fii neuf heures laa dikk ñetti waxtu ci ngoon laa ci génn juróom benn waxtu toog naa fi di dégg daal loo xam ne ci dégg dëgg dëgg dëgg des na maanaa li tax ma wax loolu mooy te moom laa jëkk wax président tribunal bi ma waaw nee ngeen complicité de faux complicité de faux mooy am na ku def faux yow nga ànd ceeg moom waaye ñetti at nii may laajte ana faux bi ngeen wax ne am na te man bokk naa ci ñi ko ñi ñi ko jëriñoo ba tey ba sànq gisaguma ko te gisuma ko tey ñu ne foo am na jël nga ko bay jéem a jël alal boo xam ne bii sa soxna moo ko sa soxna bi nga fase moo ko moomoon mu ne ko waaw nañ ma wax ban ban alal kañ laa la laa laa jëm loolu ndax dama ko bind ndax dama ko wax bu bu fekkee ne wax naa ko sax wax leen ma ma xam ba tey ba sànq ba noppi nag euh, avocat général ak avocat bi nga xam ne bii mooy jàppale euh, sama soxna ba woon ñu ngi juum ci li nga xam ne lii moom la ñu war a indil tribunal ndax ñu ngi tudd document administratif te kenn wax fi lu jëm ci document administratif tudd nañu. décision de justice loolu du document administratif maanaam ordonnance boo xam ne juge moo ko jël ne lii moo am léegi ci sëyu di diggante Abdoul Mbaye ak Aminata Diak ñaar boobu décision de justice maanaam du document administratif moom la officier d'état civil jël ba soppi document acte authentique document d'état civil foofu tam document administratif nekku ca waaye li indi ñu war a jiite rek document administratif document administratif moo di ne dañu bëgg loolu bu amee dootuma mën a politique élection bu ñëwee dootu mën a dootuma mën a toog ba noppi nag ñu boole ci war na ci tëj kaso <laughs> ah Sénégal metti na de Sénégal metti na ndax doo tooñ ñu topp la di la ci sonnal waaye boo jógee ne lii foo am na ndax Petro-Tim moom foo bu wër ci nekk bu wër te musagoo dégg ñetti at ñu ngi koy wax waaye kenn ci yéen musul dégg muy président Macky Sall muy Mohamed Boun Abdallah jon muy Aly Ngouille Ndiaye muy ministre de la justice muy euh, euh, xam nga kan kan déggagu leen ku ne li nekk ci décret bi du faux dégg la kooku amul kon faux am na foofu waaye toppatawuñu ko faux boo xam ne indi na escroquerie ndax lekk nañu ay milliards yoo xam ne Sénégal ko moom askanu Sénégal ko moom 15 millions de sénégalais nga koy escroquer kenn warul la ca topp Abdoul Mbaye ñu ne mu ngi escroquer jabar jabar boo xam ne yaa ko yore yaa ko defal lépp te musuma ko laaj jox ma 15 fan laa koy jëmee escroquer pardon ah loolu kay dina am loolu dina am man euh, te signaler lettre bi sax yaakaar naa déposé nañ ko loolu kay dina am dinañ bind euh, wax ko bind nañu directeur di nekk ñu ngi lay déglu sax yoo yoo yoo bëggee rek ñu ñëw ci yow gisee nag loolu ñaaw nañu njort ci lii nga xam ne moo jógee ci procureur de la république ndax ci yoon plainte contre x la waroon taxawal lëf am na kenn bañu ko jox jël nañu permis pétrolier jox ko koo xam ne waru ca woon a jot loolu am na kon dangay def plainte contre x bul tooñ diw bul tooñ kële waaye plainte contre x day gaaw waaye ku xam na ñëw ku xam na ñëw loolu soriwul yëfu tappale waaye ba tey ñu tappaleen ci loolu ndax ñun li am solo mooy lépp luy am rek na ko askan wa yëg na xam lu tax lii am dëgg feeñ maa ngi dégg nag ñuy oote jàmm ndax eh, dóore yi ñu doon dóore xale yi nga xam ne ñoo ñoo bëggoon a assister ca manifestation bi oote jàmm baax na nañu des ci oote jàmm waaye nañu oote dëggit jot na jërë lañ jëf